mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ndigal jib jóge ci fan Serigne Touba Cheikh Sidi Muxtaar Mbakke yal nañ ko yàlla fayal ci barkeb Serigne Bamba jaar ci taalibeem ba sëñ Cheikh Bombali ak sëñ Cheikh Gaynde ak njabootu sëñ Mbakke Madina gi yëpp seen taalibe bi muy kan Serigne Xaadim Kebe waaye nag. mu dugal ci waajur mu baax wa bàyyi sëriñ Kebe ñuy ñaan yàlla sabaram defal ko jàmm ca may ko fan gudd wànd ko wér sëñ xaadim Kebe bisam ba mooy dilsi ku xool taay bii xool toogaay bii xool jëmm ji nga xam si mooy surtout sëñ Fallu ah di nga xam ne daal bis jib si na mooy bis ban bis sëñ xaadim Kebe kañ la màggalu daaru xuddus gi bu dellu see boobu bis rekk la bisimilah. léegi nag dañuy daal di yëkkati kàddu gi jox ko kan kin duppee maamam Serigne Fallou moom kan moom Cheikh Moutala moom Serigne Fallou 45 la toog ni kur bu ndëng raf la meng yiba moot daasas ba ndar juróomi sorol sàng Fallou li mu jël ci fa jóge ah kon ñu teelu Serigne Fallou mu wax nag ci turu ak kilifa yëpp. ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salaatu wa salaam sant Serigne Touba Khadim Rasoul di santati rek te bu ngeen gisee jataay bi. xam ne jataayub islaam la di bis bu màgg bis bu tedd boo xam ne sëriñ Xaadim Kebe jànkatu xasida moo ko baaxoo def an mu nekk di ko def nag ci ndigalul ay kilifaam di ci ci sama kàddu nag ma ci woo kilifa diine yëpp di ci woo ahlu Mbàkke gépp ndax suñ xaadim ci xasida yi suñ ci la nekk di ci yëngatu kon yoon la boo amee bis bépp njabootu suñ tubaa boo xam ne yàlla mën loo na la ko nga teew ci bis bi rawatina jëmm ju toll ne sëriñ Mbàkke Madina nga ku fonkoon ay kilifaam la dundam gépp mu tënk ko ci ak taalibe ak liggéeyal maamam ji Cheikhul Khadim ak Cheikh Mouhamadul Moustapha na ko waykat boo waxoon rek ma jooy la alxuraan Serigne Mbacke Madina moo ko la dee te jàng yaa ko war kon nag bis bi alxuraan lañ ciy njëkkee mujjee ci xasaayit yal na yàlla nangu lépp mboolem ko fi teew yal na yàlla faj seen aajo ñu jóge fi sori te ñëwit eh, fañ jóge yàlla nañ fa bàyyi jàmm fekk fi jàmm delluwaat ci jàmm ànd ak jàmm yooyu wasalaamaaleykum wa rahmatulah. léegi nag ñu yëkkati kàddu gi jox ko sëñ Youssou Ndiaye. maa ngi leen di siyaare bu baax baax yéen ñi toog ñëpp nag di leen fàttali boo xam ne kenn fàttiwu ko muy bésub sant sëñ Mbàkke Madina di delloo njukkal sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñu ngi leen di woo yéen ñi nga xam ne si yéen jàkkaarloog ñun ci télévision bi di rawatina ñi nga xam ne si ñooy roy sëñ Xaadim Kebe ak fu ñu mën a nekk mu jànkal xasaay yi nga xam ne ñoo topp ci ginnaaw sëñ Xaadim Kebe di ko roy ci njàngin mi ñu ngi leen di woo kenn ku ne foo nekk ñu ngi lay woo bu baax a baax de soñu bés bi bés bi nag yàlla dogal mi ngi dëppoo talaata ñu màggale màggal suñu seex ba si ñu ngi leen ci woo yéen ñëpp rawatina dëkk yi nga xam ne si moom la suñu xaalim di jàngal ci réew bitim réew mi képp koo xam ne si yaa ngi jàkkaarlu ñoo xam ne si loolu mooy sa invitation muy dëkki àll yeeg Touba ak li wër Touba ba réew kenn ku ne ñu ngi la ciy woo di leen fàttali bés bi di leen xamal ne talaata ñu màggal màggal suñu seex bisu dellu see lay doon fu waaye mën a nekk tamit nga yóbbaale ko asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ginnaaw bi ñu sant yàlla di sant Serigne Touba bu wér man may woo man sëriñ Diol may woote ci bis bii nga xam ne moom lañ bokk muy bisi sëriñ Khadim Kebe di ci sant Serigne Mbacke Madina tombeek mardi le 17 octobre 2017 fii ci Touba Poulaye ma di ci woo mbokk Serigne Khadim Kebe yëpp ñi ko ñi ñi ñi ñi mu ñi mu mag ak ñi ko ak ñi ñi rakkam ñëpp. di woo daayira matul xadim fu mu nekk bu Touba ak bu dakaar ba Thiès ak bu kawlax ak ba bitim réew Touba marok ak Touba Espagne xidmatul xadim bi képp koo xamante ne ñoo bokk daayira bi rek ñu ngi lay woo ci bis bi tombeeg la di set di woo euh, daayira soppe yi nga xam ne ñoom lañ bokk liggéey bi fii ci Touba tey am nañ teeg ñoom tey woo dëkkandoo yi nga xam ne ñoom lañ bokk liggéey bi te bokk ñoom fii ci Touba Poulaye ñu ngi woo góor ak jigéen mag ak ndaw ñun ñëpp ñëw ñu jàpp ci liggéey bi commencé ko ci bisimilahi rahmaani rahim tàmbale ko alhamdulilahi rabil alamin tey ñaanal sëñ Mbàkke Madina yàlla na yàlla yokk leeram te taaf ñu ci barkeem barke sëñ Tuubaa ñoo ngi ñaanal sëriñ Seydi Muxtaar yàlla yàggal ko fi lool ginnaaw loolu tamit ñuy soññee di soññee ci suñ mbokk jigéen yi yëpp bis baak jàmm ñi ñëw ci wàllu benn yi ñu góorgóorlu bu baax teel a ñëw teel a togg togg yi di soññee tamit ci bisu màggal gi ku ne xam nga nanga ci daa taxawee suñ soññee nag ku ne xam ne ne màggal moom jigéen lu am solo la ja ndax ñoo yore wàllu benn yi kon nag nañ fexee góorgóorlu ku ne bis bi jàpp ko comme sa bis maa ngi woo sama mbokk jigéen yi yëpp ak dëkkandooy ak xarit yi yëpp ñu teel a ñëw xel dégg ngeen kàddu yu fas yooyu nga xam ni yëkkat nañ ko fii ci jataay bi euh, te dara waralu ko lu mooy woote bisub sant bi Seexul Xaadim bi nga xam ne moom la Sëriñ Xaadim Kebe di woote Sëriñ Xaadim Kebe nag nee képp koo xamante si nii da koy lebal si wala nga koy fay si bor mi ngi sàkku ci bis bii nga xam ne amul lu may moom ndax ñëpp xam na ni Sëriñ Xaadim Kebe jànkatub Sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke la ndax Sëriñ Sidi Muxtaar Mbàkke moo wax ni Xaadim Kebe sa moom Xaadim Kebe la kon nag noonu nga xam ne Sëriñ Sidi Muxtaar noonu la ko tàmmoo moo tax muy woo képp ku wax ashhadu an la ilaha illallah a bokk rek xaadim kebe mi ngi lay woo ci bis bii ndax lim ci jublu rek mooy gën a yaatal liggéeyul seexul xaddim ndax xam na ni seexul xaddim amul tànki ginnaaw tànki kanam rek la am comme que moom nag wàllu mu féete muy wàllu xasida moo tax muy woo ñëpp ci bisam bi nga xam ne amul lu may moom mi ngi ci woo ñëpp rawatina nag ñi nga xam te ñooy presse bi nga xam moo nekk ci presse locale bi yéen ñëpp sëñ nga xam te xamu mi ngi leen di tàllal loxo ngir bëgg fasante ngeen kóllëre ndax xam na ni fii lu fi baax yéen a koy wane ndax nit dina am loo xam ne du am solo te yéen ko ci jàppale ba mu am solo comme que moom li mu am am na solo yéen ñëpp mu ngi leen ci tàllal loxo bëgg ngeen ñëw jàppale ko ci ku ko ci leb leb si lebal si wala nga ko ci fay si bor xaadim nee na mi ngi lay woo ci bis bii nga xam te amul lu may moom di ciy woo nag képp koo xam te mi ngi ci département bu Mbàkke bi rawatina région de Diourbel bi li war na jiital sax mooy jiital ci préfet muy monsieur Mané ñi ngi ko ci woo bu baax a baax ndax bis bii bisam la ndax amul lu may si Sidi Muxtaar di ci jiital it bu baax ñi nga xam te si ñoo nekk ci commune bi ak ki nga xam te mooy Abdou Lahad Ka maire bi ak képp ko xam ne autorité politique nga te nekk fii nga xam te mooy commune bu Mbàkke xaadim nee na mi ngi ci woo ñëpp baatum ñëpp nag bàyyiwut fenn baatu fépp baywul fenn képp koo xam te tudd la jàppal ni kooku yow yaay ki jiitu ci xolam ndax xam na ni bët li ko gën a jege muy ay xef du ko gis waaye xaadim na woo na leen yéen ñëpp ci bisam bii nga xam ne amul lu may moom nee na nag xam na ni loxo bu yàggee ci mpax jàmm rek la fa fekk sëñ sii di ñang borom alxuraan moom la ko yàgg tudde ba tey delloo na bàtt ca ndaa la ñu dara jaale ko nag sëñ Moustapha Alaaji Baara moom mi nga xam te ni waajur mu baax wa teel a dem rek la ñuy jooy ci moom ndax liggéeyam bu réy bi nga xam def na ko ca ci fi nga xam ne ko sa yaaya baaxut kon bu ñu jëlee bis bu mel nii dara jaale ko sëñ Moustapha Alaaji Baara xaadim delloo na bàtt ca ndaa la kon ñu ngi leen ci woo ñëpp bàyyiwut góor bàyyiwut jigéen bàyyiwut mag bàyyiwut ndaw képp koo xamante si nag soo xëyee mën ngaa jàng alxuraan soo mënee ñëw ci kër gi mooy li gën soo ko mënut sa kër wàccee fa alxuraanul karim boo ñëwee bu fekkee ab lim la am na ñoo xamante ni fii la nekk ci kër gi ñooy bind loolu su fekkee ni si ñuy durus xasida la ku ko man teel la ñëw ci kër gi jàpp ci njàng xasida mi ndax xam na ni xaadim kabe xasida lay waaje moom lay wàlle ku ko mënut def ko sa kër bu dee lim la boo ñëwee nga joxe ko fii ñu bind ko siyaare bi nag bu buñ demee ba nga xam te lii nga xam te xewlu na ba def yëfi kabe kabe yooyu ba pare ci leen koy jublu muy 3 heures siyaare bi buñ defee berne yeeg yëpp nag ba pare muy heure trois heures boobu ci leen def siyaar bi ren nag dafa am lu ci soppiku ndax gis nañ daaw trois heures et demi la cérémonie bi jeexoon te xam na ni woo woo xasida li ci dàq mooy nit ñi déglu xasida kon buñ danoo bëgg tey cérémonie bi teel jeex su ko defee bu cérémonie bi jeex rek buñ xewloo ba pare jublu ci njàng mi fanaane ko bu bët set wecc 18 euh, lay doon ñu leen di fàttali bis la 17 lay doon la 17 octobre ñu ngi woo ñëpp baatum ñëpp bàyyiwut baatu fépp bàyyiwut fenn liñ ci jiital mooy jàng alxuraanul karim ak xasida bu jàng alxuraan ak xasida yi nag bu jeexee ñu doo a jublu ci li nga xam te mooy siyaar yi bu siyaar yi jàllee nag ñu doog a jublu ci li nga xamante si nii mooy bernde su bernde yi jàllee ñu jublu ci li nga xam te mooy cérémonie officielle bi tey mi ngi war a nekk 18 la ni woo ñëpp képp koo xamante si nii war ngaa ñëw ci cérémonie bi fexeel ba 18 heures fekk la fi bu ñu defee cérémonie officielle bi nag ba jeexal ci lañ def xewal yi su xewal yi jàll ñu doog a dugg ci nag guddi gi màggale ko xasida ak tagg rasulillahi ba bët wecc loolu mooy bis bi nga xam ne moo war a doon woote tey bii asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. ginnaaw bu nu sant yàlla julli ci yonente bi alayhi salaatu salaam noo ngi sant sunu yaakaar sunu lépp xaaliman Moustapha si Ahmadou Bamba di ñaanal a Cheikh Seydil Mokhtar sa borom yàggal ko fi lool te wéral ko xalifatul am ba yéenam yëpp. ak li mu tàmbalee li mu naal mu àggale ko barki xaadim bi te ñu ànd koog moom ak mboolem njabootu sëñ Tuubaa gi yëpp noo ngi nuyu kuy janoo ak nun di woote ci bis bi nga xam ne am na lu dul moom ji ci woo képp ku ñuy wax kuy wax asadu an laa ilaha illallah ñu ngi da ci woo di woo mbokki taalib yi yëpp murid yi ak soppe ak jullit yi ak jaam yàlla yëpp ñu ngi leen di woo bis bi nag màggal Daaru Xubas ba bis bi dellu si rek lay doon bis bi nga xam ne ci la Cheikh Moustapha andi woon ko baax ki fii ci Touba bu dellu see rek moom la ñuy barkeelu kon nag ñu ngi koy fàttali ñëpp di woo jànkati xasaay di nga xam ne noo bokk tool bi la ko dalee ci sëñ Abdoulahi Niang ak sëñ Fallou Ndiaye ak daayira Maay bu naa fi yëpp mboolem jànkati xasaay di ak ñi nga xam ne ñëpp ñoom ñaar ñooñu ñoo leen yilif ñu ngi leen di woo ci bis bi bis bi nag euh, ndigal rek lañ ci am di ci euh, dàq sunu ndigalul waajur bàyyi sëriñ ndax sëñ Mbacke Madina moo ko digaloon ñu am ci ndigalul sëñ Sidi Mokhtar démb rek nee na ma nan ko yaatal te wéyal ko loo nekk ànd naa ci kon nag maa ngi woo mbokki taalibe bi yëpp di ñaan sëriñ bi mu yàgg fi loolu te wér ba yéenam yëpp mu àgg bis bi tam sëñ Sidi Ñang moom moom lañ ko daa tuddee ndax day kenn ci nun yàlla boole nu nu bokk ndey ak baay moo waral nu jox ko loolu cër boobu ren nag sëñ Moustapha Laaj Baara moom lañ ko dara ndax mësa manqué bés bi at mu jot sëñ Moustapha moo fi njëkk moo fi mujj moo war a ren ji nag ma ne kon sëñ Moustapha nañ jël lépp delloo ko kon nag ñu ngi la ko yëgal Mbàkke yaag mboolem ñi nga bokkal sëñ Fallou ñëpp di sant suñu kilifa gi toog di sëñ Fallou lu ñu wootee rek mu teew ci te amul jot yal na yàlla sàmm ko noo ngi sant ñëpp damay bañ a baamu mbokki taalibe yi woon a ñëpp ñu ngi ñaan nag ni ko sëñ Sidi Moxtaar ñaanee wax ne bisama ne ma na ko yaatal ànd naa ci maa ngi ñaan ànd ko sëriñ bi ànd ku ci teew wala ngay jëf ci sa aajo yëpp faju barki sëñ Tuubaa jërë dégg ngeen kaddu yu am solo yooyu sëriñ Xaadim Kebe ci yar beeg teggi nii ak taalibe ga ca nekk ca moom ak bëgg sëriñ Bamba gi mu yëkk ci jitaay bi nuy ñaan ci yàlla ay yonte sëriñ Bamba noonu ko Cheikh si Muxtaar Mbakke waxe ñu defe ko noonu nii ndax ñu amee ko noonu nii ci barke sëñ Bamba big nañ bu baax sunu xol sedd na sunu xel dal na kon nag ngeen xam ni bis baa ngi noonu ñu koy dellu di ko yëgal monsieur le maire Abdou Lahad Ka di ko baax di ko yëgal ju préfet mu du Mbacke Fall di ko yëgal préfet Mamadou Lamine Mané ñu ngi koy yëgal itam ah ab Abdou Mbakke Ndaw pré euh, monsieur le maire bu Mbakke di ku baax di taalib Serigne Bamba nga xam ne daal sëriñ Khadim nee na dama tàllal sama loxo ñëpp waaye kenn ku ne xam na ni bisu Serigne Bamba fokk Baye Fall am ca yoon muy sëñ Cheikh Ndigal Fall mi nga xamee ni man nga ni Serigne seex ñëpp ni cel waaye bu nee ndigal aafaal moom rek mooy jóg moom digganteem ak Serigne Khadim Kebe kenn ku ne xam na ko ni ajjumaa ko gaaw la ñu ngi ko koy yëgal commissaire ak commandant ñu ngi leen ko yëgal bu baax a baax a baax a baax ak waa kaa bi yëpp sappoor yi ndax xam ngeen ni fi mbooloo di daje sappoor war na faa am liggéey ak Croix-Rouge bisub sëñ Sidi Moxtaar Mbàkke bii ndax nag dañuy ñaan yàlla sa lan leen fi doyee sax la tax ñu xaas sax bu leen fi doyee loolu yàlla buñ ko gis waaye nan ñëw rek ndax ñu barkeelu kon ñu ngi ñaan ci kattanu yàlla sa borom defal leen jàmm may leen fan gudd ànd ko wér ñaanal laa di woo parti politique yi ci Touba gi yëpp ak pouvoir bi ak opposition bi yëpp kenn ku ci nekk Serigne Khadim Kébé tàllal na la loxo yéene la ci tuyaay ba ji nga xam ne si ni sëñ Sidi Muxtaar Mbàkke da ko wax ci kàddoom ci ñëpp am ci yaakaar ci noonu lay amee kon daal ñu ngi xam ni ñu ngi woo góor ñu ngi woo jigéen ñu ngi woo mag a ñu ngi woo ndaw bis bi kañ la bis bi nga xamee ni sii nii le 17 octobre 2017 foofu rek la jànkati xasaay ah jànkati xasaay yëpp ñun ñu ngi leen di woo kon daal foofu la ñuy wàcce suñu kàddu bu ko defee ñu tàllal Serigne Fallou mii ci sunu wet. min duppee Serigne Fallou fayee ko maamam mu ñaan